nagu Aziz Ndiaye yaa ngi noonu rek ndànk rek macha waaye lépp lu ñuy jëfal sëñ Tuubaa rek mu jiitu ñu ànd ceeg murid yi. merci merci waaw waaw alhamdulilah kon ndax. yéeg nañ sax waaye bu baax a baax. am na yéene ji am na yitte ji. ñu ngi sant ci sant ci gërëm. alhamdulilah muy am bu baax a baax a baax. amiin amiin Mbacke amiin Mbacke amiin ñu may di joxe loxo yi ñu joxe nuyoo la kenn par kenn kooku Mbacke Balaye sa jërëjëf Mbacke moom

ñu ngi yéen a baax a baax ci guddi gi. yéen a tarixa bi ñu bokk ak maam. yéen a seen tubaab ñu ngi lay jàll a ma la magam la. jërëjëf. la bàyyam. ak jigéen ñi Abdou Aziz Alindjay di sa dom di sa taalibe di xarit di sotti di wënde moo ñëw ànd ak ay mbokk mu àndal nga xam ne ñoom la sekkal liggéey muy taalibe nag Cheikh Sidi Azimali mhm. te diggante Touba ak Tivaouane ñaari kër yi ñoo bokk benn maam mhm. bokk lu ñu mën ta séddoo muy toolu lislaam mhm. moom nag mu xam loolu di ko doxal liggéey bii nga xam ne joxoon ko ndigal ci Touba ca kanam fa saasa la dal di jëf la muy jëf def ko ci turu liggéey bi muy liggéey ndax diw diw jii moom lay liggéey tuddee ko Zador waaw mooy mooy li nga xam ne moom mooy liggéeyam mu bëgg na nga ñaanal ko ci sa gën koo kattanal te te doole ci taw fiya ba lim ci yéene lépp mu am ko ci mu ñëw nag ànd ak sa doomi bopp sëñ Cheikh Abdou moom mu soxna Oumy Touba ak Serigne Fallou Mbacké moom seen Bass moom seen Modou moom seen Mor Penda ñu ànd ak ñoom nag ak ñi nga xam ne mu la bàyyi koo jógee Tivaouane Serigne Cheikh Samb di doomi Alaaji Cheikh Samb lépp liggéey boo xam ne daal am nañ ko fii ci Touba moom kenn du ko ci jiitu bi mu ñëwee nag dem na siyaare barab yi siyaare sëriñ bi waaye indi xéewal yi bari nag ci màggal gi fas yéene koo séddale ci mbooleem kër sëñ Tuubaa yi ñëw na nag indil la ay ay nag yoo xam ne da koo barkeeloo ci bis bi indaale fukki nag yoo xam ne da koo barkeeloo ci bis bi indaale dawlin yi bi indil na la ci juróom fukki carton loolu lépp ngir barkeeloo ko ci bis bi te ñaanal la nga yaay fi loolu te ànd ak wér waaw ba li nga naalal islam daal naalal ko Sëñ Tuubaa nga àggale ko ak sa sago jumaay Tiwaawan it jëf tàmbalee na fa ca liggéey ba juróom deux cent cinquante millions nee na waaye jëf ji ci jëf nag te mu jóge fii Tuubaa dem Tiwaawan nee na mel na ni moom loolu moom mii nga ko defal nee na nee loolu sedd na xolam ñu lay ñaanal sa borom sa fan te wéral la naa li nga naalal islam naalal ko suñ ko àggale ko sago sëñ Mouhamed billahi samil alim min asheytan rajim lay sof ci lu gàtt tabaraqallahu mooy sa njaboot bii sa doom jii sa soppe bii nga xam ne dañ ko tuddee sa mbokk tuddee ko sa soppe ba moolaay abdul aziz al amin lii sëriñ maamul wax loolu laay feddali rek tabaraqallahu barki démb bii sa maam ju baax ju cheikh sëriñ alxaaji malik wo ci bis bi nga xam ne sa maam sa yitte ak sa taxawaay moo waral nga dikk waaye boo yebaloon Mouhamed Sylla mii nga xam ne taalibe la doom la ci kër gi loolu doy na sëkk waaye ak cofeel ak mbëggeel gi nga am ci sëriñ bi mm-hmm. na am ko ci soxna si mm-hmm. loolee moo waral nga yëkkat sa tànk yi ànd ak say rak ak say soppe daal di ñëw ci kanamu sëriñ Touba mm-hmm. loolu da nga xam ne sëriñ bi yëg na ko bu baax a baax nag yëg na ko baax yëg nañ ko baax a nañ ko bi jataay bi da taal jataay bi mottali na yëpp yëgoon na ko laataa jataay bi di am waaye bi mottali na lépp xolam sedd na guy nag ci taxawaay mu ne day ñaan yàlla yàggal ko lool amiin te wér jiitu ci ak fan bu gudd amiin wér jiitu ci fan bu gudd amiin ba yow it nga gudd fan lool ak dalee liggéey bi yàlla moom boo yéenee rek mhm. boo deful dara mu koy la fan ko gën a soxla mu ne boo yéenee boo deful dara rek mu dencal la a soxla la fukk mhm. eh, te fukk yooyu mën nay mën nay dem ba ay téeméer wala ay junni. Mhm. dëgg la ndax moom lépp te du jeexal dara. waaw mu ne suñu borom moom lépp du jeexal dara boo defee benn mu defal la ko ay fukk fulal la ko. dëgg la koy tàmbalee waaw fukk la koy tàmbalee ah, di wéy. mën naa dem ba ay téeméer mën naa dem ba ay junni. mën naa dem ba ay téeméer mën naa dem ba ay junni. taxawaay bi ak sa jëf ji yàlla na ko amiin mu ne kon nag sa taxawaay bi ak sa jëf ji yàlla na ko suñu borom dugal foofee. amiin nangul la ko lépp nag amiin kattanal la ba nga mën a àggale sa liggéey bépp mu ne da xam ne sant nañ la gërëm nañ baax a mu ne boo def jëf ji mu ne boo def jëf ji taxawaay ba nga xam ne taxawaay nga ko ca taxaw nga ko ca Tiwaawan loolu doyoon na sëkk rawatina taxawaay ba nga xam ne taxaw nga ko ca Touba ca kanam mu ne loolu doyoon na sëkk waaw loolu doyoon na sëkk rek mu ne lii ndol ndolleen rek képp la waaw mu ne ngëneelu yàlla amul fenn fu mu yem moo tax moom kon kon kon li nga def bari mu ne li nga def bari na lool waaye day dolleeku di wéy rek nag. amiin suñu borom kattanu la ci rek. amiin borom kattanu la ci ak tawfeex. amiin jërëjëf nangu na lépp bisimilah. amiin amiin daal. yëpp seeree rek njabootu sëñ Tuubaa gi mu àndal. ñu ngi leen seeree seen diggante. li nga xam ne moom leen Abdou Aziz jàppee. di ci taxawaay di yitte. ci lu ne rek taxaw na leen ci baax baax waaw ñu ah, ne sant nañu Abdou Aziz baax a baax la wax dëgg yàlla amul faye Sëriñ Tuubaa rek lañ ko bàyyi Mbàkke mu ne bëgg nga ñaan leen ko baax a baax jege si Abdou Aziz mu ñaan baax a baax waaw mu ñaan ci waaw bu ñaaree ba noppi rek ñu toog ndànk may ba mu jàll ñu soog a génn incha allah incha allah Amém. Amém. Amém. Amém.

ñu bokk benn lay bokk bàyyi yi ku ne màggal sa xel ci li muy jëkk a dem mooy berndeel bégal doomi aadama yi bégal gani xaadimu rasool yi mbokk yi boo nee berndeel sa xel fi muy dem mooy huile j'adore mooy diwlin bi nga xamante ni àndul ak benn cholestérol mooy diwlin bi nga xamante ni moo mën a bégal doomi aadama ci togg gu mu mën a doon rawatina ñu jëm màggal ci dëkkub Serigne Touba ba mbokk yi huile j'adore fas leen faa fekk ngeen ànd ak moom ñu berndeel gan ñi ñu ànd ak moom ñu teral doomi aadama yi ca Touba boo ko soxlaa da ngay woo Pape Dieng marché Ocass 77 533 87 wala nga woo Baye Abdou ci 77 241 81 57 sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér jërëjëf Serigne Touba huile mooy mooy sunu diwlin.